wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yób lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen ndokkeel te di leen ziyaara ci sedd bi di am mbégte itam ci dajawaat ak yéen ci barab bu sedd bi waaye nuyoo yi ak ziyaar yeeg ñaan yi ñu ciy jiital Mawlaana Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla yàlla dund ko kàttan ak wér di nuyu itam mboolem ñi ñuy topp ñëpp rek moo xam ñi ne ci barab bi ak ñu ñuy topp ci jumtukaay yi xam ngeen ne daayatu mu daayatu Muxaddamatul Xidma mi ko baaxoo rek ci weeru sell bi ci bind yi nga xam ne ak waxtaan yi nga xam ne dana koy faral di amal ci waxtu bu mel nii noonu rek la koy wéyal ci tey fas yéene fas yéene cee àndaat ak yéen wenn tomb bu am solo waaye ànd ko moo ci genn ci borom xam-xam yi nga xam ne ràññee nañ leen ci gox bi mu mel ne tey li nga xam ne moom la waaye daayira bi tàndoon ngir ñu war koo waxtaane dafa jëm ci tam bu am solo boo xam ne ñëw na ci waxtoom te kenn ku ne war na ci bàyyi xel mooy rek lekk alal yi nit ñi ci neen mooy lan nan la ko waxee koy déggee ak yan jeexit la am yaakaar naa loolu buñ ko waxee rek xel yu baree bari dana mën a xam ne tomb la boo xam ne waxtaan nañ ko ci waxtoom ndax day lu yomba yomb loo xam ne kenn ku ne boo moytu mën nga cee àgg sax te doo ko yëkk nag di doy waar itam ci ab société kon tomb boobu lañ bëgg waxtaan ak lu am waaye naas bil baatil mafhumuhu wa athaaruhu ñu fa seeni ci ànd ak kenn ci nga xam ne yàgg nañoo jaar ci barab bi ñu ràññee leen seen xam-xam ak seen taxawaay ci gëstu ak jàng jàngale muy sëñ Fadil Bousso Thierno kon moom lañu war a jox tomb bii ngir mën ñëwal ñu ci ci loo xam ne yaakaar nañ de bu ñu noppee dana mat sëkk ab yóbbal ci ngoonu tey bii ñu koy ñaanal yàlla di ñaanal itam mboolem ñi nga xam ñoo fi teew yépp yàlla may ñu ak dégg ak topp tamuy lu am njeexitam loo xam ne buñ noppee dañ ko mën a yóbbu kon dañuy jox rek sëriñ Fadal bu sama dugg ñu ci waxtaan yi bismillah sëriñ Fadal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك billahi min alsheytaan irrajim wa inni uizuha bika wa durriyataha min alsheytaan irrajim rabbi auzu bika min hamazati alshayatini wa auzu bika rabbi an yaxduruun bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأمته الغر الميامين bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel ci weeru tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mbooleem liñ ci jaam ñoo ngi nuyu ak di ziyaara itam ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan yàlla yàggal ko fi am yàggale mboolem naalam yi dañ ànd ko moom di nuyu daayiratu muqaddamatul xidma di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala jéego yi ak liggéey yi ñu def sunu borom nangu ko dañ daja cee ngërëmal sëriñ bi ni ko sëriñ bi waxe léegi tomb boobu lañu ñu joxoon ngir ñu nafaraat ko waaye lañ koy laytaayale mooy jullit mooy ku tënku jullit mooy ku tënku mooy koo xamante ni day nangu ñu koy digal muy jëfe nangu ñu koy tere muy bàyyi kooka muy jullit jullit du tinkeeku jullit dafay tënku di jëfe ndigal di moytandiku tere loolu nag dafay feeñ ci ay jëfam ak ci waxam lu muy jëf da cay bàyyi xel ndigalal yàlla di ca moytandiku itam la ca borom bii tere la muy wax itam noonu ci kaw ndigal yooyu nag ci la ko borom bi sante woon ne ko na ngay liggéey ngir nga am lu lew looy mënal dundale sa bopp dundal ci sa njaboot muy ndigal loo xamante ni nag yàgg naa wàcc ci nit ñu baax ñi ci jaaroon ñépp rawatina yonente ya alayhimu salaatu wassalaam moo tax ci laay juróom fukk ak benn ci suuratul anbiya sunu borom ma ngi fay wax ak yónnente yi ne leen ee yéen yónnente yi na ngeen di lekk ci li gën a teey di lekk lu dagan tey jëf-jëf ju baax te na ngeen xam ne lu ngeen jëf man yàlla xam naa ko yaa ayuha rusulu kulu min altayibaati wa amalu saalihat inni bi ma taamaluuna alim kon daf leen digal ñoom ñépp ñuy dunde lu lew di dunde lu sell noonu nga xamante ni itam noonu la ko digalee noonu la ko sëriñ bi radiallahu anhu feddlee wax ne di liggéey ba am di fàgg lu lew farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri waxam kon loolu mooy ndigal li mooy jullit dafa war a fàggu ba am lu lew lu muy dunde loolu mooy xàll biñ koo xàllal su ko wàccee bay dunde leneen rek ci la waxtaan bi jëm su wàccee ndigal loolu ba sàkk weneen yoon woo xam ne ca lay wute lu muy dunde lu dul lu lew ca la wàcc yoon topp ñal wi te ña topp ñett ñal bi nag moo waral ñuy waxtaan tey jii ngir man koo moytandiku ba dellusiwaat ci xàll bi muy lekk alali nit ñi te tegoo ko fenn nag mooy lan ak lan mooy ay jeexitam ku nekk xam na ne loolu tasaaroo na bari na moo tax dañ ci junju yenn rek yi ci des itam nag ñu bàyyi ko ba ñeneen ñëwaat man koo mottali waaye lañ cay jiital mooy lekk alal yi nit ñi te tegu ko fenn mooy lan te mooy lan itam kuñ koy laaj mooy lislaam lislaam la ñuy laaj loo jublu ci alal ju ñàkk lew ñu tontu de alal ju lewut dey mooy alal joo xamante nii nit ki da koy jële ci moroomam nitam te jaarewu ko ci yoon woo xamante ni moom la sariya rëddoon mu mel na kon dañuy laajte yan mooy yoon yi nga xamante nii suñ ca jaaroon jaar nañ ca yoon wa jaar nañ ca xàll wa sariya ne nit ki day alal jami dundee su fekkente ni dañ ko ko may dañ ko ko may alal juñ la may dagan na nga jëfandikoo muy benn su fekkee dañ ko koo sarax ba tey loolu ba tey luñ la sarax man nga koo dunde lew na su fekkee da koo jënd te anam nga nga ko jëndee wér ba tey itam loolee nga jënd lew na la su fekkee da nga koo donn loo donn itam bu fekkee wér na ne ca ñu war a donn nga doon alal joojee dunde ko lew na loo liggéey itam ci sa loxo te liggéey ba tënku ci liggéey yi lislaam nangoon ak sàtt yam tëraloon loo liggéey ba amee ko ci saw ñaq bopp loola yitam dafay lew luñ la jox hadiya ngir jëm yàlla loola itam mën nga koo dunde ndax lu lew la loo xam ne nit moo dénkaane ne bu ma fi jógee nañ ma joxal diw sàngam ci sama alal ji suñ la ko joxee loole itam dafay lew kon nag yu dul yii su fekkee nit amee na ca alal te bokkut ak benn ci yi loolee mooy alal joo xamante ni dañ koo fàggu te anam dañ koo fàggoo lislaam nangu ko alal ju mel noonu nag dafa nekk loo xamante ni jëfandikoo ko lu araam la baatu lu araam nag bari na waxtaankat yi liñ koy tudd waaye mooy lan ndax boo ko xamee ci ngay mën a xam dayob liñ lay wax ne moo araam mooy lan mbokki jullit yi lu araam mooy lu la sariya tere ne na nga ko bàyyi te bàyyi ga itam mënoo koo ñàkk def ne la soo ko bàyyee ngir jëmmi yàlla ma bindal la ci tuyaaba waaye soo ko xëttee ba def ko itam yayoo nga ca mbugal ndax boo tuubee te tuub ga sell sunu borom mën na laa jéggal kon loolu mooy lu arab loo xam ne sariya daf la ne la bàyyi ko te mënoo koo ñàkk a bàyyi te soo ko bàyyee ngir jëmmi yàlla ma bindal la ca tuyaaba soo ko defee lañ la tere woon boo ko defee yayoo nga ca mbugal ndax yayoo la ñuy wax ndax boo tuubee te tuub ga sell suñu borom mën na ko nangu bàyyi ga nga koy bàyyi itam da koy bàyyi ngir jëm yàlla soo ko bàyyee ngir leneen doo ci am tuyaaba sàngara li muy bon bon bon su nit ki ñëwee ne du ma naan sàngara ñu ne ko ah waa loolu de baax na ndaxte lu tax doo naan sàngara ndax li ko sariya tere moo tax mu ne ah dama bokk ci dama dama dama bokk ci xeet bu sérieux boo xam ne xamuñ naan sàngara ba tax na du ma naan sàngara ñu ne ko ah, bàyyi nga lu bon de waaye duñ la ci bindal tuyaaba ndax bàyyiwoo ko ngir liñ la ko tere danga koo bàyyi ngir yilla jëleen lu mel noonu kon lañ la tere danga koy bàyyi ngir jëmmi yàlla boo ko bàyyee ngir jëm yàlla ñu bindal tuyaaba kon dafa araam loolu mooy lu araam kon <coughs> ku ko bàyyiwut man nga caa yeyoo mbugal tegtal biñ sukkandiku ba ne lekk alal ju la lekk alal joo xamante ni fa nga ko fàggoo sariyaan nangu ko dafa araam mooy fi sunu borom waxee ci laay ñaar fukk ak juróom-ñeent ci suurat nisaa ne yaa ayuha amanu laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil illa an takuna tijaratan an minkum dafa tere nit di lekk alali moroomam ci ay neen ci lu dul dëgg loolu ci alquran la ci sunna nag yonent bi alei salaatu wasalaam na ne jullit ak mbokkam jullitam léppam dafa araam ci moom ñu ne ko détaillé ñu mu ne deretam dafa araam ci moom mooy waru ko rey jullit du rey mbokkam jullitam te di ko tey ak lan mu ne alalam wërta sàcc alalam wala mu koy këf ndax loolu daf ko ko wara a ñoŋalal akub deram waru koo jëw waru koo ŋàññ waru koo saaga kon xadis boobu du lépp ñu ci ñor ci sunu jataay bi waaye li wax ne wa maaluhu alalam kon alali juddit kenn waru koo lekk te mayu ko wala nga amee ko ci anam yooyu ñu njëkkoon a tudd ci njëlbéen ak waxtaan bi moo tax borom bi tabaraka wa taala waxaat feneen ne bu leen lekk bu leen lekkante seeni alal te tegu leen ko ci dëgg waaye ci neen rek ngeen ko teg ndax nee na mën naa am nga lekk sa alal yi mbokk ba noppi gën koo neexu làmmiñ ba dem ca àttekaay ba wax ba yey ko bañ jox la àq ja te fekk yeyoo ko dangaa mën a wax rek te mën a lay ta loolu de boo ci fexee ba rëcc ci ci àdduna itam man ngaa rëcc waa àdduna waaye doo rëcc waa àllaaxira ndax borom bi tabaaraka wa taala moom mooy borom kàttan ga te lépp la xam lépp la fekke te tëlewul dara wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili wa tudduloo biha ila alxukkaami li taakulu fariqan min amwaali nnaas bilismi wa antum taalamuun yonente bi alei salaatu wasalaam tam xamoon na ne alal dana indi ay jafe-jafe ci xamoon na ne alal dana indi ay jafe-jafe ci aw xeetam ndax nee woon alal mën naa nekk fitna te mooy fitnay sama xeet bi inna li kulli ummatin fitna wa inna fitnata ummatil mal kon ñu xam ne li muy am am njariñ moom alal nag manees na cee loroo lool waliyaasu billah mu teg ca moom yonente bi alei salatu ne jamono day dana ñëw yoo xam ne nit ki de dana yegg ci càggante foo xamante ni la muy am ci alal du faale ndax lu ci yoonu dagan la ko amee wala ci yoonu araam la ko amee lu ñëw rek mu jël nee jamono jooju dana ñëw te nuru na ne yegg si na suñu ne bari na ñoo xamante ni dañuy fexe ba am rek waaye anam nga ñuy amee ak yoon wam jaare ndax dagan na wala daganut moom seen yoon nekku ca moo tax loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam euh, yeewoon ñu ci yàgg-yàgg am kuñ ñu wax ibnul mubaarak mu ne nit ki day waroon naa yegg ci sàmm te mooy daraja la ci ragal yàlla ba nga xamante ni benn dërëm boo xamante ni daf ko lënt xamul jël ko jëfandikoo ko dagan na am araam na da koy jaral mu bàyyi ko loola da koy gënal sax mu sarxee téeméeri junni li sarxee téeméeri junni di am am solo nee na mooy tandikoo dugal ci sa biir dërëm boo xamante dafa lënte looloo ko ëpp doole ndax mooy tandiku tere kon ñoom lañ jiital ci jëfe ndigal sax mooy tandiku tere moom lañ jiital ci jëfe ndigal Seydina Umar ibn Xattaab itam waxoon ne ñun de yeggoon nañ ci moytandiku alal ju lewut yeggoon nañ ci daraja joo xamante ni bu fekkoonte ni li yàlla daganal ñun fukki xaaj la Seydina Omar mu ne bu fekkoonte ne li yàlla dagan daganal ci ñun fukki xaaj la léeg-léeg daa nañ fa bàyyi juróom-ñeenti xaaj yi jëfandikoo benn ba rek ngir ragal a tàbbi ci lu araam yi Seydina Omar waxut waxut ci cadre lu araam de ci lu dagan la lay wax ne lu dagan su fekkoon ni fukki xaaj la ñoom ci seenu moytandiku ak seenu sàmm daana leen jaral ñu bàyyi fa fukk ya donte na dagan juróom-ñeent ya donte na dagan na di jëfandikoo benn ba loola fa moytandiku mën a yem boo gisee ñu doon jiital lii mooy xam le ne yii ñuy bëgg a tudd nag lu mat moytandiku la ndax jullit war nay daw waxtu nekk ci lu koy xettali di ko musal ci sawara musal ci njabootam bokk na ci melokaan yi nga xam ne diis na ci lekke alal nit te tegoo ko fenn ba ca jiitu mooy riba jëfandikoo riba lekk riba ak di ko jëfandikoo musiba mu réy réy ndax borom bi tabaraka wa taala daf cee tëkkoo ci alquran ci laaye ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom mu ne am na ñoo xam ne dañuy jëfandikoo ribaade waaye bu ñu xamoon la leen ci fekk ëllëg duñ ko def alladina yakuluuna riba laa yaqumuuna illa kama yaqumu alladi yataxabatuhu saytaanu min almas nee na ëllëg bis penc kay jëfandikoo riba di ko dunde suñ dee dekki moom day mel ne ku ak ndof sadd day jóg ak a daan lu ko waral ba mu nekkee àdduna daf daa jëfandikoo riba mu ne ñooña mooy ña nga xam ne bañ nekkee àdduna buñ nee neen riba dafa araam ñu ne déedéet riba ak jaay ak ñoo yem ndax bu ci nekk day dolli alal rek te ñun ginnaaw alal yu dool dolleeku rek moo ñu ñor kon dañuy jàpp ne jëfandikoo riba moo jaay ak jënd ñoo yem borom bi ne leen déedéet wa axalla allahu wa xarama riba xanaa ñooñu dañoo xamul ne yàlla miy daganalal ak di araamal moo daganal jaay ak jënd waaye moo araamal riba kon ñu xam ne loo xamante ni day waral nit ki ëllëg bu dee dekki mel ne dof loola te mbugal muy tàmbali rek la lay ñëw ginnaaw bu moo gën a tar loolu lu mat di bàyyi moytaliku la te riba ci la bokk te jëfandikoo riba dafay dindi ci alal barke day far barke ci alal ku am alal te nangoo bàyyee jëfandikoo riba sunu borom day rocc barke ci sa alal yamxaqullahu riba wa yurbi sadaqat te suratul baqara laay ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn li tax riba itam ginnaaw xam nañ cëslaay li tax mu araam ci alquran sunna itam yonente bi daf caa tëkkoo yonente bi tëkku kuy dundee riba tëkku ña ko koy yombalal muy ñi koy jox di ko yombalal di ko jox riba mu koy dundee kooku daf koo tëkku génne ko ci yërmande yàlla ak ka nga xamante ni mooy bind contrat ba diggante ka koy lekk ak ko koy jox kooku sax ca la ñaari seere yi nee na ñu ñépp ñoo yem ci rëbb laana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa mukilahu wa kaatibahu wa shaahidayi wa qaalahum sawa riba moomu nag dañ ciy joxe ay misaal ba ca njëkk mooy ma lebal la ñaar téeméeri dërëm ne la nag boo ma ko dee fay ñaar téeméer ak ñeent fukk nga may fay ñeent fukk yooyee ca yokk riba la ndax lislaam lim xam mooy ku la lebal ñaar téeméer ñaar téeméer nga ko war a fay kon ku daa jëfandikoo lu mel noonu di leble di ca teg ay ay ay ay intérêt na la wóor ne yaa ngi jëfandikoo riba loolee ca tege mooy riba waroo koo jëfandikoo kan koy jox itam waroo koo jëfandikoo moo tax boroom xam-xam yi noonu kullu salafin jarra manfaatan fa huwa riba riba nag tasaaroo lool ci àdduna si rawatina sunu réew yi ba ci intérêt yi nga xamante ni day jóge ci banque yi te banque daanaka ñi ci mucc bëreetut ndax am na ñoo xamante ni jéem nañ caa mucc waaye dañ leen caa dugal muy riba ji nekk ci biir banque yi intérêt banque yi naka noonu itam jëflante yi nga xamante ni société yi yore wàllu assurance benn ngay assuré sab oto ndax Sénégal gii boo yoree sab oto bëgg a daw ci kaw tëli bi kaw yoon wi di dem te amoo assurance buñ la jàppee téye la te moo ne assurance day dëgën waaye amuñ ci pexe ndax état mooy doxale loolu te moo ëpp doole yore doole ndax la tax lislaam nungu ko mooy man ngay dagg assurance par weer wala par ñaari weer par at dawal sa oto ñaar fukki at yu mat sëkk yàlla musal la ci ay accident yaa nga doon werti sab xaalis mu tëdd fa te doo ca jot man ngaa xëy faatu te alal joojee moom doo ca jot loole nga xam ne yaa ngi ko doon werti te doo ca jot looloo tax nag lislaam du ko nangu muy assurer assurance waaye amuñ ci pexe ci ñu yor oto te bëgg a daw ndax xeeti état yi ñoo ne fuñ jaar dañuy dagg assurance bala ngay mën ci kaw nañ ci sax bay assurer seen dund wala ñu yor seen ak bitig daal koy wutul assurance pour bu lakkee nga dem ñu fay la wala lépp loo xamante ni man jamono mën na koo indi ci ay tolof tolof nga dem ca société yooyee ñu bindal assurance pour nga bu la loola nga dem ñu fay la li tax lislaam nangu ko mooy mën ngaa daw ay ati at ba xëy faatu sax te nga doon daw mu dal la dëlu la alal joojee da koy dootoo jox loolu nga xam ne mooy lënte ci biir nag moo tax lislaam nangu ko riba jooju ak loolu nga xam ne mooy alal ju jooju nga xam ne moo ci dugg moo tax lis lislaam nangu ko kon nag li tax ma leen mucc ci yombut da ngay ñëw ba ci suñ xeeti état yi ñu ne yow ab jàngalekan nga salaire bi ma lay fay man état ci banque laa koy jaarale ci banque laa koy jaarale te banque di jëfandikoo riba te amoo ci pexe lu mel noonu itam nag mu ngi ci suñ réew yu bari ba dee di liggéeyal état di jàng ab jàngalekat ñu ne la sa salaire bi ci banque lay jaar te banque di jëfandikoo riba di am ay intérêt nga koy fay fay yoo xamante ni xamoo lu doon te amoo ci sañ-sañ kon riba moom tasaaroo na ci réew mi tasaaroo goo xamante ni yéeme na riba moomu nag ku ca dugg yàlla nattoo la ko ba nga dugg ca ba bëgg a tuub noo cay génne mooy ka nga lebaloon ñaar téeméer mu war laa fay ñaar téeméer te ne ko ñaar téeméer ak fukk nga may fay boo bëggee tub da ngay foog ñeent fukk yooyu yee ca woon nga dem delloo ji ko ba noppi tuubal yàlla ba noppi tuubal yàlla su fekkee gis nga waaja nga dem delloo ji ko soo ko gisul taxam ña ko donnu nga dem ne leen ki ngeen donnu dama ko damaa jëflante woon moom am riba ju ca sosoon muy ñeent fukki dërëm yi jël leen ko ginnaaw yéen a ko doon soo leen fa fekkul nag wala gisoo leen wala xamoo leen nga saraxa ko ngir jëmmi yàlla te yéene ko tuyaaba ja moom waa joojee nga séqaloon jëflante noonu la ñuy génne ci mel ni riba yooyu yi nga xamante ni nag nit ki moo ci amul pexe état dugal ko ca loola moom ad darurat tubihul maxzura ginnaaw amu ca pexe amu ca pexe bis bu ci amee pexe nag génn ci rek kon benn bunta ngi noonu boo xam ne ci gàttal ak tënk lool nit dana ci lekke alal yoo xamante ni léwut bu ñaareel ba mooy li ñuy wax ger ger itam dañuy laaj lislaam noo ko firee ndax jullit mooy ku tënku ger nee na mooy li nit kiy fob ci alal di ko jox keneen ñu ne ko loo ci jublu mu ne ngir neenal ak neenal ak dëgg walla dëggal ay neen luy loolu mooy nit koo xamante nii dafa dem ca kanam àttekat ba mu wër ko ne moo tooñ digganteem ak kam ko séqal mu yëkkati dara ab som xaalis jox ko àttekat bi ne ko fexeel ba dëgg gi ñëw ci sama wet moom moo may koy joxe gerekat la kañ koy jox kuy nangu ger la te ñoom ñaar ñëpp nag la yonent bi alei salatu wasalaam rëbboon ne woon la ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam arrasiya wal murtasiya ki koy joxe ak kañ ndax loolu su wayee dara dootu jagat benn misaal boobu ñaari misaal bi mooy takk der gi nekk ci kaw yoon wi yow nga yor sa oto boo xam ne wóor na ne amuti këyit mu arrêté la contrôlé ba xam ne manque nga këyit sàngam ñu ne lii de boo demoon fañ koy fayee danga nga ci fay six mille francs mu ne la nag kaay ñu waxtaan boo joxee ñaar téeméer wala deux mille francs ma bàyyi la nga dem nga jox ko ñaar téeméer wala deux mille francs yooyee mu bàyyi la nga dem boo boobaa yow ma joxee ñaar téeméer yaa ngay gere moom takk der googee ko nangu ma ngay gere te loolu musiba mu rëy a ci ndaxte dañoo fekk six mille francs yi waroon a dugg ci alali mbooloo mi ñëpp bokk ñu xañ ko mbooloo mépp dugal ko ci poosab jenn waay jox ko mille francs wala deux mille francs ñu bàyyi waaja mu dem te loolu buñ ko toppee diw def ko keneen def kenn def ko ay jun def ay million def ko réew mi économie bi daanu wala bokk fu mu maroon a mën a amee alal ju baree bari bunt boobee dafay daal di tëju moo tax nag li nga xamante ni ñu ngi ciy tooñ taalibey murit yi di koy tuddee nuyoob murit te jublu ca ger loola ku koy ku koy wax na ko ba kenn itam waru koo tasaare ndax murit du ger murit dëgg dëgg dëgg du ger du ger du nangu ger itam li tax nag ger amul solo mooy ger day yàq société bi ndax day gëmloo nit ñi ne man ngeen am alal te du ngeen sonn foofu ger ak carte ñoo fi yam li tax carte ñu war koo tele ci am réew moo di ne carte ak ger day gëmloo société bi ak benn benn société ne man ngeen a am alal te du ngeen sonn te lislaam nag la mu bëggoon ci jullit mooy buy am alal mu mu joxe coono waaye taxaw ci mbedd mi rek ku manqué wu kayit te waroon a fay six mille francs joxe mille francs ñu bàyyi la ko rek nga dem yomb na lool yomb na lool kon ger day daane day daane économie réew day yàq société am ndax day gëm loo nit ñi ne mën nañoo am alal te duñ sonn day yàq économie réew mi itam ndax day tax la waroon dugg ci kees ak réew mi du ca dugg waaye day dugg ci kee poos yi benn benn te loolu comme ni ñu ko waxoon su tasaaroo dara dootu baaxati loo xam ne ci ñëpp la waroon jëm ñëpp jariñoo ko mu dem ci poosab lenn lenn benn benn yi loolu day daane économie réew ger itam day tax ñuy jox place ku ko yeyoowut xañ ko ku ko yeyoo man ak yow ñu dem ci foo xamante ni état moo ko ubbi ne dafay recruter dafa bëgg a jël ay liggéeykat ñun ñaar ñëpp ñu ñëw taxaw ku nekk soxla place bi man ma ñëw yëkkati xaalis jox kañ fa teg ne ko fexeel ba ma jot ci place bi donte ne xam naa ne kii ma dendeel moo ma ko gën a yeyoo gën ma ëpp xam-xam ëpp ma capacité alal joojee ma ko jox tax mu jox ma place ba xañ ko kee loolu ger la man mi ko joxee ger naa moom moo ma ko jël ger na te ñun ñëpp lañuy dugg ci laana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arrasiya wal murtasiya kon ger dana tax ñuy jox place ku ko yeyoo wut bàyyi fa ka ko yeyoo ñett yii yépp nag tax na ku ko dégg war a mën a bàyyi neexalaate ndax baat bi mu gën a jegele mooy neexal nit ngir mu jox la àq joo yeyoo wut wala mu xañ sa morom àq joo xamante ni moo ko yeyoo woon day yàq société day daani économie réew day tax ñu jox place bu ko yeyoowut loolu mooy kon ñaareel bi ci yi nga xamante ni ku koy dundee ku koy dundee yaa ngay dundee alal joo xamante ni moomoo ko te alal ju léwut la itam ñetteel ba ñetteel ba nag mooy sàcc sàcc sàcc nag euh, mbokk yi itam di ci taxaw laaj laaj sariyan luy sàcc ba tey maa ngi del siwaat ne jullit dafay tënku lu muy def da cay laaj sariya loo ci dugg sariya nee na sàcc mooy nga jël alal juwoo moomut te ba nga koy jël boroom alal ja yëgu la nga jële ko ci barab boo xamante ni dencukaay la loolu nee na loolu mooy sàcc jël alal joo moomut kon alal joo moom waxu jël ko ci waxtu woo xamee ni borom alal ja yëgu kon soo ko jëlee ci kanamam mu lay gis du sàcc jële ko ci fuñ baaxoo denc alal boo ko jëlee koo xam ne dafa sànni alalam ci digg mbedd ma loolu di su ko sàcc leneen lañ koy tudde dana ñëw ci kanam kon loolu mooy sàcc jël alal yi keneen te neexu ko te ba nga koy jël yëgu la te nga jëlee ko ci foo xamante ni ab dencukaay la loolu nag dafa araam muy sàcc moomu sunu borom moo ko araamal ci suratul maida laaye fanweer ak juróom-ñett ci wassaariqu wassaariqatu faqtau aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaalan min allah wallahu azizun hakim loolu ci alquran la yonente bi alei salatu wasalaam daal bu xamoon dana bàyyi sàcc ndax nee yàlla dafa rëbb ab sàcc génne ko ci yërmaandeem ndax nee na sàcc dana ñàkk jom bay sàcc lu toll ne am nen ba waral ñu dagg ab loxoom wala mu mu mu sàcc lu lu lu xeebu ba mel ne ak buum ak buum ba waral ñu dagg ab loxoom mu ne ku xam nag ne lu néewee noonu gis na ca dagg ab loxo war ngaa moytandiku war ngaa moytandikoo sàcc ndax nee na yu ndaw yooyu ku ca entraîné wu ba sori ca yaay sàcc yu mag yi soo moytandikoo yu ndaw yi rek yàlla mën laa musal ca yu mag ya waaye soo xëttee yu ndaw yi ba nuur ca yàgg ca itam mën ngaa def tooxi doona wu ko ëpp moo tax yonente bi alei salatu wasalaam doon moytandikuloo euh, sàcc ndax amul solo sàcc moom mu nag nga xamante ni am na yum wuuteel te niroog moom am na façon jël alali doomu aadama te deesu ko tudde sàcc te boo yeexee nit ñi xamut te laajul sariya danañ jàppe loola sàcc jàppe ka ko def te du sàcc ndax sàcc bu dee nii ñu ko tuddee nga xam ne sariya moo ñu ko wax jël alal joo moomu te ba nga koy jël boroom yëgu ko te nga jële ko ci fu ñu war a denc alal fu ñu baaxoo denc alal ku ko defee noonu ñu enquête ba xam ne noona la demee àttekat biñ dénk wàllu sariya wax ne lii la demee booba àtte ba mooy dañuy dellu ci alxuraan ne faq taxum dañuy dagg loxo ba tàmbalee ko te loo xam ne day joor ba nag dañ koy dagg waaye nag waaye nag dagg la ko la wax kon nag bu nee dagg la ko la te bàyyiwu ko nit ñi nag senegal gii ku fi kuñ fi yóofoo ab sàcc nga ñëw ne yow nit ak kese ki rek ne dafa sàcc ñu ne waa nga yóotu ko daggab loxoom ci kaso bi koy faat ndax yaa tooñ itam nag ndax du sawal sariya ma ko waxoon daa am ñu ngi ko dénk ñu war def enquête ba xam ko wéyal àtte ba am ñu koy wéyale waaye du yow moo tax na bu ñu dikkee Sénégal nag yi ñuy teg teg ab sàcc sàcc baaxul de waaye yi ñu koy teg wuute na lool nag ak la sariyan waxoon àtteem bu ñu defee enquête ba xam ne dafa sàcc mooy dagg loxo ba tàmbalee ko ca loxoom ndeyjoor ba waaye du dóor ko du dóor ko du rey ko du saaga ñaari way juróom te lépp a ngi am gis nga yii mbokk yi boo gisee ñu war koy waxtaan boo yeexee sax boo yeexee mu arrangé sàcc yi ëllëg bis pénc mu dimbale leen laaw yii nit ñi dëgmal ba di ko namoo ñun suñ koñ suñ dëkk ku fa sàcc ñu rey la wala ñu dóor la wala dañ koy yooxoo di saaga ay way juróom bu ñu yeexee ëllëg bis pénc sàcc baaxut de waaye bu ñu yeexee mu arrangé sàcc yi ndax àq yu bari yi ñu leen yore diglewuñu woon dóor diglewuñu woon rey diglewuñu woon saaga ñaari way jur yi sàcc lu ca seen yoon